il a eu la chance d'être d'avoir un gigabyte donc euh, facilement mën na mën na dawal. encore mais surtout une bonne hygiène de vie. waaw ouais, surtout surtout c'est important loolu Cheikh Tidiane. Euh, Kajoor je l'ai dit sànq nee naa ñu Sénégal dañoo gaaw suul ndaanaan. et que yàlla bul juum nañ. gis nga gis euh, nga gis nga li xew ci ci ci coupe d'Afrique bii nii dafa war tax ñu war a teyaat ci kaa gànn gi ak Cheikhou Kouyaté. on a de très bons joueurs ay ñi mel ni ñoom Pape Gueye ay ñoom Lamine Camara mais est-ce que longévité bi nga xamante ne nii ay ñoom Nampalys est-ce que longévité bi nga xamante ni Gana Gueye am na ko Cheikh Kouyaté am na ko est-ce que joueur dina am longévité longévité boobu parce que gis nañ tey ki nga xamante ne mooy Nampalys Mendy depuis coupe coupe du monde bii ba tey il a des difficultés pour pour être à 100 pour cent Pape Gueye il est tout le temps blessé te tey bu ñu doon wax équipe nationale Sénégal dëgg dëgg dëgg on parlait de Cheikh Kouyaté on parlait de Gana Gueye euh, au milieu de terrain donc te c'est des jours yoo xamante nii ils n'ont pas encore 35 ans. Gana Gueye 34 ans je crois Cheikh Kër également 35 ans. Ah. Euh, moom ils sont de la de euh, de la même génération. je pense que du moment que ñu ngi évoluer fi nga xamante ni nii moom mooy Premier League mu nekk un championnat très très très très rigoureux xam nga di fa prouver comme ni ko Grégoire waxee à chaque fois mu nekk match boo xamante ni match bu mag la Gana Gueye ci lu voie et te léegi dafa nekk ci registre boo xamante nii il ne plus seulement défensif parce que Gana Gueye dañoo bu njëkk doon wax day taxaw kese il ne fait que marquer récupérer les mu joxe leen mais léegi gis nañu Gana dafay indi un apport offensif te loolu c'est pas à négliger soxla nañu ko mën na ko il capacité je pense que am nañu la possibilité Amath Gana Gueye un an deux ans et équipe nationale soxlawul ñu naan kii na arrêté wala jeexal na buñ ko woowati tant que nit ki tant nit ki tant que nit ki il a les moyens et la capacité de prouver que ni il mérite sa place au sein de la tanière nañu ko woo c'est pas parce que on a des jeunes joueurs c'est pas parce que on a des joueurs talentueux rek li nga xamante ni nii moom moo defoon euh, moom moo nekkoon phare équipe nationale bu Sénégal Mais il est toujours il est appelé il est toujours appelé à l'équipe nationale mais pas en Côte d'Ivoire il était sur le euh, surtout jeunes yi nga cité bon ay Lamine euh, Euh, Pape Gueye ba tu penses que mën na. mën na revenir mais euh, Gana Gueye Gana Gueye ban ban ban ban ban situation la ñëwee ci Coupe d'Afrique bi. il était blessé il est arrivé il est arrivé blessé man connaissant bien Aliou Cissé ak nu ma xamee Aliou Cissé souvent sax ma Grégoire da nga koy waxtaan en aparté c'est pas c'est pas un coach adepte des moom tant que am loo xamante nii c'est quelque chose de solide tant que mi ngi am benn onze boo xamante nii lu mu soxla dina ko jox man je crois que ni à 100 pour cent doon na bokk ci nga xamante ni dañuy démarrer la coupe d'Afrique des nations. même si waaw ah. moom mmh. mais mais tu penses que euh, comment dire